Wow, internet de la grande prix ñu leen di char ñu ngeek machine la machine la ñu ngi lay char ñu ngi lay fay ci contane nak bu baaxa baax parce que presse bi yëpp ñëw nañ pour waxtaan ak yow nga ne tay do wax nga accordel ñuko sur la grande théâtre TV ñu ngi ci contane bu baaxa baax machine la noo gisee làmb ren parce que après tout machine la amateur la waaw loolu la borom dogal amateur la damay suivre làmb ndax làmb suñu culture la waaye lépp lu waaye man di wax mooy làmb moom dee na làmb moom dee na duñ ko nangu nag waaye dee na ndax dama ci dama cee am cër waaye li nuyoo nii awagul aw yoon awagul yoonu neex loolu moom mooy li moom. ba ba am nga ci yaakaar. fii ci karam làmb ji mën a neex. Ah, a yal na neex ci jàmm rek. yalla neex ci jam rek lolou lañuy ñaan yalla yalla neex rek waye awagul yoon de awagul yaan. kon legi ñi nga xam lamb la lañ wara mëna mën a def balaa balaa mu neex. wañi kasse yi wañi kasse yi mbeuri ñoy wañi kasse yi ndax sport lamb moy seen métier defuñu nit nak bu fekkene ni defo lulul beure nga am dang koy wañi rek mo ci nekk monsieur li mu gis pour luy doxal lamb mooy mbëri wàññi seen kese ndax ñu mën leen tëgg. waaw il faut ñu ko te naxante ndax ay 30 millions 40 millions yombul yombul yombul yombul. kon suñu monsieur la lu combat Lo Ama Baldé wax parce que combat wu ñu wax ñu ay 150 millions ñu 100 millions. loolu moom wax dëgg yàlla bëgguma cee wax loolu wax bëgguma wax duma ci wax dal wax deug yalla parce que lu amagul wax deug yalla munuma ci wax dara wax deug yalla waaw. comme tay ni ngay arto na gañi pour ñu wañi kasse parce que combat bi dañu gis luñ ci laaj mu bari lool. non pour ñu baña naxal dañu wañi kasse yi rek ndax ñun ñop Sénégal lañ dëkk dañuy yéenante jàmm dundu jàmm ku am sa kër baye ngay yobbu kon nit lepp lu mëna woyé falé ba am lu yobbu kër bayam da koy def fofu rek waxé waxee. euh liru jaaj mu nekk lamb jo xamni ne ni ñëpp a ngi <laughs> monsieur le no gisee en tant qu'amateur lamb jo neex lay doon ndax promoteur bi ko tëgg day sama lepp promoteur bi ko tëgg day sama lepp dama koy ñaanal yalla combat bobu mu réussir ci jamm ak salam mais lepp lu ci man di nekk dal mo yalla na wulli daan. yal na wuli. yal na wuli daan. mo nga ñaanal ci combat bi. moom ñaanal yalla yal na yalla may ndam waaw yalla nako yalla may ndam lu seddu guy ci barke alxuraanu karim ni gis ni que fi la xëy woon masa la toogoon fii ñu laaj ko ci kamba Eumeu sen modlo mo xol lo xamni ni dejut masa la waxaat na ci wa dama ñaan yalla lu ma wax yalla sutural ma mu am lol lay ñaan yalla damay ñaan combat bi yalla na wulli daan lol laa ñaan te dina def lu tax mu daan ci inshallah rabbi lol la ñaan yalla fu mbeur mi tollu modlo roi des arènes Modou xala mi ngi ci mbokam ak entraînement mi ngi xamna xam lolu foog waaw. sa digënd ak modlo jamm rek ak salam waaw man ñepp la seexal jamm man sport rek moma ñor la neen ñoruma. yang kay koy ba lay wala. lolu daal wax yalla euh ni ngi doon liggéey guñ lamb dañuy ñaan yalla mu amat lamb rek ci jamm ak salam ñu doora xam lu ñu wax loolu la ñu ñaan yalla kon daal sa and ak mom mi ngi dépendre ci mom lamb ñu sét ci lam dëkk. non xam nga mudu mom sugar ak ndox xoyal tour mbaa nga xoyal naan rek la non lañ mel suñ digënde non la mel. sa digëk Balla gay loolu du ci wax deug yalla du ci wax kon dañ koy may loolu amee internet de la Grand Théâtre TV masil la lu ñu accordel dafa rëy tey presse bi yëpp ñëpp ñëw nañ pour waxtaan ak moom mu du wax mu ñëw nak pour accordel ñu lii waxtaan ak mom du ñu def lu dul sant ko gërëm ko kenn lay seet si kër ga ñu def waxtaan bu yaatu dañuy delluwaat ca aya ba rek mooy faral di wax muy faalu lima yurid yalla luko ko dina ko def bu jotté rek ñu waxtaan dinañ waxtaan inshallah bu neexee yalla ya, jërëjëf la ñaanal Grand Théâtre TV mu nekk télé yàlla def ci réew mi jàmm def salaam te incha allahu rabi dana sotti lépp yàlla suñ borom dana ko sottal tey nag dañoo ñëw ngir soutenir suñu xarit Keba Kanté ndax Demba Xarañ Lo lu mu dugg ñoo ngi ci biir ndax suñu lépp la ku bëgg muudu rekk ñu bëgg ko loo rekk la.